Réumi 24 TV. maa ngi nuyu sunu gal yëpp di alerté sunu khulafa turuq turqi sunu umaraaw al jamaat al islamiyya ni li may ragal du que ni ñu arrêté le leader du parti Pastef ndax buñ ko arrêté respecté droit am dugal ko kasso nun population bu Sénégal bi nga xamé ne dañu gëm projet bi def ci adhésion totale totale danañu ko fa génnee comme nañ ko fa génnee woon bañ ko yóbboo section de recherche ca Colobane waaye la may ragal mooy lay xewoon ca Badaloo te danaa ko jéebaane mooy ñu ne dañ ko muy résister mu doon ñu nangam wala la xewoon ca Bousso ca Touba wallahi ñii ñu éliminer physiquement physiquement ndax Macky Sall ci boppam ennemi la jàppee Ousmane Sonko ta jàpp naa ne Ousmane Sonko jappi woko enemi adversaire la ko jàppe mais ko rewmi mi ko jiite yalla dammir jamia man ala do durana qabla wusul ilayna waqinaa yàlla maa ngi taxaw ci wetu barzak ki féete soowu kër mbaari di la ñaan ne wa bi kitabati saxir li jami' man lam yuhibbuni fa innaka samii ñi bëgg faagaagal sëñ Ousmane Sonko physiquement ndax jëm nañ ko jallul moy tentative d'assassinat brisé nañu voiture am toj nañu otoom ca Bakke yii yëpp yàlla ko waaye tiire bal ci kawam moo leen dese te maa koy tiit te dama koy wax lu ma ci fekk baax kunu alal xaq mahma kallafakumul amr waxi sëñ Tuubaa la fa kullu ma fiihi ridallahi jara fala taxaf fiihi malamatal wara mësuñoo bëgg réewum Sénégal ab sëriñ jiite ko te Ousmane Sonko contournement la ndax moom sëriñ la jàng na alquran te mi ngi koy jëfee parcours am ak discours am bu doon mënoon na koo takkal ca fukki at ak ñeent wala juróom yam def impôt boobaa xenk na ko ci kaso bi waaye foofa kii dafa seet wecc nekk nit ku intègre nekk nit ku digne nekk nit ku engagé wu et investi mooy am na xarañ am na njàmbaarte jub na am na jom am na fulla ta yooy yëpp gisuma ko ci Macky Sall Macky Sall doomi jàmbur comme nee ngeen yéen a jiite yéen rumeur yi Pape Alé wax na ko nee na yéen pulaar yi yéen a jiite te loolu gëm ko ndax man ay pulaar ma wër fii ci Kër Mbaari ñëwoon nga fi laaj naa leen ñu ne ñun loolu gëmuñu ko waa Casamance waa Casamance kay ñoo war a xewle ndax Senghor côté côté côté soowu googu la nekkoon gannaaw gi waa Louga aaye nañu côté Njàmbur gii noor bi aaye nañu ci dëkk Fatick te tële na loolu mooy côté côté bi te des côté Kaolack ba kon côté sud bi. ñoom la yàlla bëgg ñu aaye yàlla na ko yàlla def mu nekk julli juróom muy cinquième président bu réew mi ñi bëgg a faagaagal yàlla na leen yàlla faat ñoom ñëpp bala ñoo àgg ca kawam dammir barke xijaabu daaray ni barke siddiqum barke rabbi ma yasrahul athana qad faja dammir jamia man araadu durra sëñ Ousmane Sonko qabla wusulihim ilayhi waqihi loolu li may tekk mooy ñi ko bëgg a faagaagal defal ma leen ay morsa damm téer ma leen ñoom ñëpp képp koo xamee ngi nangul na Moussa Fall mi nga xamee ni ñu bari jàpp nañ ne ab mujjirim la man maa ko wax am na ñu naan sama xarit la man faale wu ma lool baye boo ñu bokk dara nga di xaritam waaye ñi ko bëgg a faagaagal ñëpp yal na leen yàlla dammate ay morsa ba ñoo àgg ca moom tamu aar ko yal na yàlla ci hijaabu daaray ni waaye ci baytu woowu ci nuuru daaray ni maa ngi ci mbir barzak gi ci kër mbaarik di wax ak yéen su ngeen ma bëggoon arrêté fii rek ngeen di ñëw maanaam wa bi kitaabatiya saxir lii jamii man lam yuhibbuni fa innaka sami ñi ko bañ ñëpp yàlla notal ma ñooñu notal ma ñi nga xamee ni baytu yi jàng naa ko sëñ Ousmane Sow wa bi kitaabatiya saxir lii jamii man lam yuhibbuni fa innaka sami na ma ko sëñ Xabaan Diop mi nga xamee ni mooy sama technicien privé te nee na ba ñu ma tudd turam ak sëñ Soy bu nañ ci def li ci war a def ci sama photo ñu tasaare ci réseaux sociaux yi ci plateforme yi ak yëpp on m'a

cour suprême conseil constitutionnel ak àttekat yooyu yëpp nga xamee ni lu leen Macky Sall digal la ñuy def ñoo bokk ci complot d'état boobu kon lii na leer na leer sénégalais yëpp dama bëgg ñu tasaareel ma ko ci réseaux sociaux yi ci plateforme yi ci sëriñ ndax am na ku nekk ca kër sëñ ba turam tàmbalee m maa ngi lu ñu tëdd fii ci barsàq bi wallahi ñi bëggul Sénégal génn ci gute gi mu nekk bëgg Sénégal resté ci buumum jaam te Macky Sall ci la bokk ak ñi ci moom ñëpp ñooñu ñëpp maa ngi ñaan yàlla mu faagaagal leen bu naree faagaagal sëñ Ousmane Sonko condition bi mooy loolu fama staqaabu lakum fastaqimu lahum opération gatsa gatsa ñu naan amul ci alxuraan xëy na gatsa gatsa dafa ceddoo waaye gatsa gatsa mooy fa man i'tada aleykum fa'tadu alayhi bi misli ma i'tada aleykum ku jalgati sa ci ku la dambalub cër dambalu ko cër soo muñee nag yaa xam tuural sa bët tuural bëtam loolu mooy faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bi misli ma i'tada alaykum ku leen faat faat leen ko loolu am na moo tax Marley waxoon yes I killed the sheriff waaye expliqué ko daf maa bëggoon rey saa su nekk mi doon complot naan kii nañ ko éliminé waaye Marley waxoon nañ itam kill them before they grow boobu mooy Ousmane Sonko mi kat bu fi màggee ci 48 ans yii bëgg a jëlee senegal ci mbuumu jaam gii bëgg Sénégal am constitution bu mucc ayib bëgg Sénégal am école bu école sénégalaise au lieu de école française bëgg suñ ressources yi ñu mën koo jariñoo am na beneen camp boo xamee ne dañoo nangul tubaab yi bu ma nee tubaab yi nag génneewu ma ci américains yi génneewu ma ci turki yi génneewu ma ci indien yi génneewu ma ci chinois yi génneewu ma ci kenn kuy collaborer ñi nga xamee ne ñoo fi nekk te bëgg maanaam mbuumug jaam gi du rek kon ki bëgg mbuumug jaam gi yàlla ñu ngi lay ñaan euh, ñi bëgg réew bëgg sañu Ousmane Sonko bañ a am déception ndax demuk Ousmane Sonko ak faatuk Ousmane Sonko waxuma tëj kaso de ndax tëj kaso kenn du ko nangu waaye lay xem ci arrestation ba laa ragal mu moom lay répété dama ni li may wax damay yuuxu ba ngeen dégg ko la may ragal mooy lañ defoon Badaloo ak lañ defoon Bousso ca Touba ñu def ko Ousmane Sonko bu ko defee nag réew mi tàkk arrêtez l'agresseur l'agresseur mooy gis ngeen li xew Ngor gis ngeen ci xew ci yeneen barab yi l'agresseur mooy sunu premier mandataire bi ma nekkee kooki nag am a lu fa daan xew da ngay jékki-jékki rek dégg ñu ni borom juri ak tool ya ña ngay ña ngay rayante ña ngay gorante ay jaasi déedéet borom jur nag na nekk pël na nekk tukulóor na nekk joola waaye ñooy ruur toolu jàmbur te ni kenn du ko wax Macky Sall nag république bi def nga ko république da ngay ruur toor bi tamit kenn du ko wax ku ko wax danaa la tëj kaso wala bu ma la tëjul kaso leneen mën na caa xew ba ci sunu RG yi renseignement yi nga xamee dañoo dañu dañu faatu te kenn mujjul te mënewu leen benn enquête yéen yi nga xam ne yéen a am doole ji pour mën a enquête pour leeral loolu noonu la ñu xamewul dara ca maître sëy mi nga xamee ne ci nekkul woon ci say jamono kon yooyu yëpp moo ànd nga ni da ngay république bi yow da ngaa waatoon ne da ngay respecté loi dëkk réew mi ba noppi ba nit ñi respecté ko maanaam li nekk ci réew mi xam ni république la ñëpp dañoo war a nekk égaux devant la loi loolu respecté woo ko ñu ànd ak yow lu leen neex def Macky your time is up bàyyil doomi jàmbur bàyyil doomi jàmbur bàyyil doomi jàmbur